Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce mardi 23 avril 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV s'informer juste c'est vrai Sun djogé fofu dañuy dem feulé ci palais de la république ginnaw li nga xamanteni moy ay initiative yi nga xamanteni le président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye jël nako djaglal ko li nga xamanteni moy mooy OFNAC ginnaaw loolu bi nga xamanteni après ñent weer yi nga xamanteni dañu indi won renforcement jëmale ko ci ay pouvoir lé ko fofu ci assemblée nationale pour xeex lépp lo xamanteni dafa jëm ci walu fraude ak corruption muy OFNAC mëna doon loo xamante ne dafay gis benn xar kanam bu bees ginnaaw bi ko réformé suñu sukkandikoo ci rapport bi nga xamante ne suñ source mi ñu koy xamal di le président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye dafa daal di invité kii di première présidente institution bi nga xamante ne mooy Nafi Ngom Keïta mu daal di liggéey ci benn sens boo xamante ne dañuy reprendre lépp loo xamante ne maanaam mooy ren yi jëmale ko ci entité bi nga xamante ne dañ ko créé woon ginnaaw bi nga xamante ne kii di Macky Sall ñëw na au pouvoir en 2012 ba tey suñu sukkandikoo suñu source mi ngi xamal kii di le chef de l'État son excellence monsieur Bassirou Diamay Faye ginnaw bu mu défé proposition bi ak ki nga xamante moy mooy ancienne inspectrice générale d' di Nafingom Keita, Keïta ci benn audience Bo xamante accordal nako lepp lo loo jamono ji mën nañ ko xam mën nañu xam daal que benn réponse la ñu am mooy ñuy jëm ci li nga xamante moy mooy benn revanche jaarle ko ci li nga xamante moy mooy Keïta bu mu décidé won delu ci en même temps ginnaw loolu daal si la xam li nga xamante moy mooy contour Bo xamante ni ëllëgëm dafa jëm ci ay réforme yoo xamante di président Bassirou Diamay Faye daf ko dal di sàkku ci ki nga xamante moy yaa Nafi Ngom Keita pour que ñu xool ko daal di indi yeneen réforme foofu ca of nag ginnaaw nag Nafi Ngom Keita jàppale ni que mooy yaay ci ki nga xamante ne mooy Fadilou Keita muy ki nga xamante ne nekkoon na prison bokk ci parti bi muy parti Pastef bu Ousmane Sonko jamono ji ñoom ñoo nekk ci régime bi en tout cas ay initiative lu bees la xamante kii di président de la République Bassirou Diomaye Faye jël na ko daal di accordel audience qui dit Nafi Ngom Keïta bi nga xamanteni inspecteur général d'État la mom mo fa nekkoon ginnaw loolu dal pour que ñu indi ay coppite moy ay réformes yu bees yo xamanteni manam lañ ko ci delloo ginnaw bi nga xamanteni Macky Sall moko créé en 2012 bu mu accédé au pouvoir ñu dal di koy voter fofu ci assemblée nationale muy ay initiative yu bees yo xamanteni président Bassirou Diomaye Faye jël nako ko jëmale ko foofu ci OFNAC Thank <laughs> you.